jëf mbokk internet yu suivre solution TV solution info ñëwaat nañu beneen yoon ci seen émission bi di émission des émissions émission yi ci biir émission <laughs> comme niñ koy defee rek ci format bu bees bi lee ñu fas yéene ci ànd ak Alaaji Sanjoogu Meng ak ma jigéen Diop comme niñ koy defee rek ginnaaw biñ leen jaajëfalee yéen ñi nga xam ne ni yéen a ñuy bàyyi xel di ñu suivre say su nekk rek tey nag daañu waxtaanee émission yi nga xamante ni ne nii gis nañ ci semaine bi mu doon daw euh, dinañu tànn nag ay xalaatu ñenn ñi indi ko ci table bi su ko defee ji moom itam du ñàkk am na ci xalaatam ñu daal di koy faram fàcce ba mu gën a leer baskan wi seetaan euh, gën a mën a comprendre actualité yi dox ci dëkk bi di Sénégal ginnaaw nag biñ leen yoo jaajëfal leen balaa ñuy xuus ci suñu waxtaan dañuy daal di nuyu nag alaaji Sanjogum Meng Euh, mu ma bàyyi la nga nuyoo ak euh, internet suivre solution info yëpp alaaji ma jigéen ñi ngi lay fay euh, <coughs> di nuyu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu nekk mm. ci biir réew ak bitim réew mm-hmm. fu waay mën a nekk ñu am ci ñëpp mbégte ak kontaante mm-hmm. ñu ngi nuyu sénégalais yëpp di nuyu nag bu baax sunu sëriñ sëriñ di mu sëriñ Abdoulahat mm-hmm. di ko ñaanal mu yàgg fi tànn ak di nuyu sëñ xaadim ne ci kër gaa njaboot ga yëpp di nuyu sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makaarimul Axlaaq mm-hmm. mais ñu ngi nuyu sénégalais yi nga xamante ni bi euh, ñu ngi ci bitim réew maanaam euh, di fa def lu am solo mm-hmm. wane fa seen bëgg réew mi mm-hmm. ak cofeel gi nga xam ne am nañ ko seen réew ba nga gis ni lépp loo xamante ni bii rek yaa ngi koy wax mu soxal réew mi nga gis ni nga xamante ni bi noonu lañ ci wanee euh, ñoom seen taxawaay donc loolu nekk loo xamante ni lu am solo la. Mm-hmm. que <coughs> mënoon nañu dem rek. fàtte waaye li waykat ba wax ni picc nga ca kaw xel maa nga ca suuf. seen lépp ak seen xalaat ak yëpp mm-hmm. mi ngi fii. Mm-hmm. loolu nag nekk loo xam ne lu am solo la. ñu lay gërëm. bu baax di la sant. waay ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax itam comme ni nga ko waxee rek jaajëfal bu baax euh, waa diaspora bi da ciy daal di am solo même su fekkee ne dañuy wax euh, bëriwuñu sax mais euh, am nañu lu ñuy représenté ci biir Sénégal liñ fi dugal itam kenn mënu ko jël tuutal ko moo tax ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ziarale Serigne Sidi mu Serigne Abdou Lahad Mbacké ñaanal ko yàlla mu yàgg fi loolu te ànd ak wér yàlla suñu borom defal ko jàmm defal ko jabootam bis ko ci biir këram tey nag daañu waxtaanee. ne euh, kàddu yi nga xamante ne ni euh, moom kilifa euh, yëkkati na ko fële ca sans limite jëmale ko ci ki nga xamante ni ni moo di Ngagne Demba Touré mi nga xamante ne nii daa exilé wu dem fële ca réew mi ñuy wax Mali nekk dendandoo ak ñun bu ñu ca noppee nag daañu ànd ak ancien ministre laa ko mën a wax bu ñu jiite woon wàllum commerce muy Aminata Assome Diatta moom nag may Maimouna Ndour fay daf ko dalaloon fële ca 7TV mu yëkkati ay kàddu itam jëmale ko ci ki nga xamante ne nii moo di président na sunk jeexalee ko nag ak émission bi di jàkkaarloo nga xam ne bu Bouba Ndour dafa yëkkati ay kàddu itam jëmale ko ci ki nga xamante ne ni moo di Barthélémy Diaz mu nekk loo xamante ne nii daanaka. Euh, def na viral euh, ci réseaux sociaux yi léegi léegi lañuy ñuy daal di euh, ànd ak yéen ci yaatal dañ koy dooree nag ak rappeur boobu di kilifa bokk ci mouvement bi di yanamaax moom itam yëkkati woon na ay kàddu fële ci sans limite ngir rek taxawaay bi nga xamante ne ni moom ngañ Demba Touré amee na ko ak daw bi mu dem dugg fële ci réew mi ñuy wax Mali ñu dem seetaani vidéo bi daal di tëdd waat Maître Ngagne Demba Touré a parfaitement raison il est célibataire il est encore jeune mën na exilé wu moi je suis pas célibataire dafa am ñu nekk sama responsabilité mënu ma leen fi bàyyi di daw di gàddaay mais bu dul woon loolu man damay gàddaay dëkk boo xamante ni booy génn sa kër man bi may ñëw fii tàgguwu ma ah, su ma tàggoon sama soxna daf ma naan doo dem doo dem parce que lan la ñuy wax ku toog léegi ci télé yi wala ci rajo yi wax ñu ut benn poox ndoll buñ la convoqué ne la appel à l'insurrection voilà mu ngi noonu alaaji euh, dégg nga euh, kilifa euh, kàddu yi mu yëkkati jëmale ko ci Ngagne Demba Touré balaa ngay xuus ci analyse bu mu def muy wane ni moom peut-être su fekkul woon ne amul responsabilité par exemple jabaram bu mu yor ak njabootam mënu leen bàyyi fii génn réew mi mais est-ce que génn réew mi si jamono ji ak ni ñu dissoudre Pastef si seeni problème yi ñu nekk est-ce que solution la balaa ngay ñëw ci euh, li nga xamante ne ni euh, ba kilifa wax na ko. waaw mais xam nga <coughs> damay démarrer ci li kilifa wax euh, parce que moom moo sabab li nga xam ni moom mooy wax ci. Mhm. maanaam kilifa dafa wax fi réew mi toll. Mhm. fi réew mi toll la wax ni dane moom su fekkoonte ni bii tey amul jabar amu fi doom. day dem yoonam daf ne Ngagne Demba Touré il donc dafa war a dem yoonam mm. loolu mu wax noonu nag euh, nekk na loo xam ne parce que tamit aussi expliqué na loo xamante ni moo waral euh, mu wax wax ji mm. parce que nee na la ci biir émission bi ne la émission bii nga xamante ni moom laay def nii mm. su ma tàggoo woon du ma fi ñëw dëgg la donc c'est parce que say mbokk dañ lay wax ne la moytul donc képp kuy wax ci ay rajo ki télé jamono jiñ toll nii say mbokk ak la koy wax. Mhm. parce que dañu gis nit ñoo xamante ni bi téye nañ leen ci loo xamante ni bi jàppoon nañ ni kenn du ci téye déet. Mhm. maanaam dafa mel ni li mu wax noonu ne ñi ngi xool ay prox ndoll yoo xamante ni bi mhm. maanaam juum nga ci sa wax. léeg-léeg sax mën nga juum wala nga wax wax joo xamante ni bokkoo ak ay nit gis-gis. ñu ne dañ la ciy téye. loolu mooy li nga xamante ni bi foofu la réew mi toll foofu la kilifa di waxee. li kilifa wax mbir la moo xamante ni bii tey bu ñu arriéraatoon tuuti Sénégal fii ak bu ñu ko arriéraatoon rek jëpp ci jamono la nit ñi wax nañ fi lu ne Abdoulaye Wade kenn mësul gëm ni fii ñu yegg si. dinañ fi yegg si fi yegg si mm-hmm. et pourtant ñi ngi fi mm-hmm. lan moo ñu fi yóbbu lan moo ñu fi yóbbu c'est parce que dafa am yu bari yoo xamante ni bi ma jigéen. waaw euh, jaru ko. dafa am yu bari yoo xamante ni euh, nguur ak lu nguur mën a mel jaru ko parce que situation bi nga xamante ni bi tey moom la sénégalais yi di dund vraiment dafa nekk loo xamante ni bi man jàpp naa ni peuple sénégalais mérité wul situation bi ñu ne mérité wuñ ko parce que peuple bi peuple la boo xam ne peuple bu responsable lañ peuple lañ boo xamante ni peuple bu pacifique lañ mm. peuple la boo xamante ni bi mérité na leneen mm. lu dul yi nga xam ne moom parce que nag bul fàtte ni ma jigéen mm. ki nga xam ni moo nekk ci bopp réew mi muy le président Macky Sall sénégalais yi dañoo xeex jàkkaarloog Ablaye Wade mm-hmm. daal di ne lu bari du am président Macky def ay déclaration fii ci biir réew mi mm-hmm. ay kàddu yoo xamante bi yëkkati ko tey yi ñuy wax Ousmane Sonko ci wàllum déloger la pale bi vidéo yaa ngi ci li nga xamante ni mooy internet bi mu ngi ci réseau sociaux yi ñëpp gis président Macky Sall yëkkati ay kàddu yoo xamante ni bi doon na ko wax mais mu nekk ay kàddu politique mu nekk ay kàddu yoo xam ne Abdoulaye Wade xam na ni ay kàddu politique la mhm. parce que ki koy wax du ki koy def mhm. xam na ni en politique buñ ci nekkee yenn discours yi ay signal la mhm. et pourtant terewut après Abdoulaye Wade bàyyi na Sénégalais yi dem nañ voté fal président Macky sàll guddi googu ñëpp dañoo jóg di daw di yuux tey ñii nga xam ne ñoo nekk ci fitna ñooy ñi doon tàccu démb. Mm. ñi doon tàccu démb ndax tey mérité nañ situation bi nga xam ne moom la ñuy dund. Mm. loolu lay waxee parce que tey bu ñu demee bañ ne suñuy doomu réew ñi ngi daw di doon ay daw làq lu tax c'est parce que seeni xalaat ak seeni gis-gis mënatuñ koo wax ci réew mi ñu ne. Mm. loolu c'est grave. mais mais mais alaaji bu ñu demee ba toll foo xam ne bu ñu waxee ñii ñu jàpp leen tëj leen ñii jàpp ragal nañ ñu jàpp leen moo tax ñu daw dem ci beneen dëkk est-ce que tamit du ñu dem ba finalement euh, ñi ñiy waxati léegi pour réew mu defaru euh, toll fa mu tolloon comme ni nga koy wax démb parce que dina amati ci miin réew tamit. waa léegi c'est loolu danger la réew moo gis yenn yi di am ay signes la yoo xamante ni bi baaxul ci réew. Mm, mm. parce que am réew dafa am yoo xamante ni bi noonu lañ ko tëggee. nit ñi di joxe seen xalaat di ko wax. Mm-hmm. parce que nit ñi bu ñu noppee wax seeni xalaat rek musiba la. Mm-hmm. te léegi boo seetee nit ñu bari lii seen xalaat sax waxatuñ ko. Mm-hmm. dañuy toog ci média yi lii seen xalaat dëgg dootuñu ko wax te duñ ko wax ku leen ku ñu wóoluwut. maanaam nit ñi ci suñu jëmmi bopp dafa dem ba kóolonte doxatut ci suñu diggante mhm. c'est parce que am na ay enregistrement am na lëleeg ku la infiltré ku la ki yooyu yëpp dafa commencé nekk loo xamante bi dafa tàmbalee am mhm. nga jéem a turé nag li mu def ni man gis naa ñoo xamante ni bi mhm. ñu ngi jéem a xëpp suuf ci li nga xam ne mooy mais expliqué na lépp ci biir li nga xam ni moom mooy post bi mu def parce que wane na ni am na ñoo xamante ni bi defoon nañ ko ku ci mel ni mm-hmm. De wax na tamit ay talaa xumay ni mm-hmm. mi nga xamante ne bi demoon na Irak mm-hmm. yooyu yëpp wax na ko et pourtant après la nga xamante ne bi noonu la demee fii ci biir réew mi sax am na ay kilifa diine yoo xamante ne bi defoon nañ ko wallaay daal di génn dëkk bi am recul c'est parce que jamono jooju nga xamante ni bi moom lañ nekk faaw ñu xam ni il faut que ñu wut ay pexe stratégie léegi nag am na ñoo xam ne dañ neen way dafa waroon a toog ñu jàpp ko mais bu ñu ko toogee jàpp ko après ban njariñ la amal seen mouvement bi ban njariñ ñëpp ñu ngi nii toog nañ ñu jàpp leen ñaata nit lañ jàpp ñu ngi amal ay grève de faim yoo xamante ni bii tey mais stratégie du noonu Ousmane ko waxoon na leen ne xeex dafa am stratégie mhm. waxoon na leen ko ci njëlbeen léegi ndax lii ngañ jëm ba def ndax strat lenn la ci wala lan la loolu la ñu war a xool te man pour man loolu message la boo xamante ni message bu foor la boo xam ne état bi war na jéem a xool. Mm. lii lan la parce que Mali gii la dem. Mm-hmm. Mali boo demee ñan ñoo fa ne. Mm. ci contrôle ay militaire la ne. Mm-hmm. Mali dafa tut ak nenn France. wallaay wallaay ñu ngi fii tout près. Mm. donc yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni bi ay message la yu ñu war a bàyyi xel. ngir fexe lii nga xamante ni bi ñu ngi koy def ci biir réew mi ñu bàyyi yenn yi ñu moytu. parce que moytu dafa baax parce que tey Sénégal daanaka sunu borom wàcc wàccee fi xéewal gu ne benn waaye mës naa ko dégg moo ko mu ne mais dañoo mel ni réew moo xam ne bii lépp a ngi fi pétrole bi nekk nii da ko tey ñuy fowee almet mhm. foowee almet nag. baaxul ci réew baaxul ci am réew. Mm. te loolu fi mu toll nii fa lañ nekk. donc je pense que ni kilifa diine yeeg ñëpp war nañ jóg wax. Mm-hmm. pour réew mi delluwaat fi nga xam ne fa la nekkoon parce que fi mu nekk nii moom wax dëgg fa yàlla euh, recul la. foo xam ne yaakaaroon nañ ni mm. Sénégal du fa toll. recul la te euh, ñëpp a jaaxle vraiment te bëgg nañu nag euh, jàmm ji fi amoon démb mu dellu si fi waat dañuy dem nag ànd ak ki nga xamante ne nii rek moom moo di Assome Diatta. Euh, ginnaaw bi mu génnee ci mouvance présidentielle bi moom nag yëkkati na ay kaddu yoo xamante ne ni man Sonko la ko jagleel mu àndandoon ceek ak Maimouna Ndour Faye ñu dem xooli boobu la vidéo daal dellusiwaat ci plan Sénégal ñoo xamante ne xamuñu ku tooñ ku fayu la ñuy xam monsieur Sonko n'a jamais été tendre euh, envers le président de la République euh, depuis son entrée en politique mais je pense que musuta attaqué ouvertement les institutions. Depuis son entrée en politique, il n'a jamais, tout cas, il a été très dur envers le président de la République, son Excellence Macky Mais il n'a pas, en tout cas, moi, j'ai pas entendu dans ses propos, jusqu'en 2021, okay. des propos déplacés vis-à-vis -vis des institutions. C'est après cette affaire de Hadjissar et tout ce qui s'est passé qu'il s'est radicalisé. pourquoi c'est ça le questionnement et je pense que aujourd'hui le procureur muy les magistrats bu ñuy poser bu ñu quel que soit atte bu ñu ko war a atte dañu war a def cette rétrospection dem ba derrière ce qui s'est passé et à partir de ce moment dinañ mën a jël euh, vraiment décision bi nga xamante ne mooy décision bu Ousmane Sonko a été mis dos au mur loolu mooy dégg bi aman nag te loolu moo tax tamit sama sama sama politique xaw a compliqué ndax tey jii c'est comme si j'étais là à défendre Ousmane Sonko alors que je suis sur les principes il a été mis dos au mur parce que il a compris que avec cette histoire de Adji Sarr on était en train de le liquider et je pense qu'il a été atteint dans son honneur qu'il le dise ou qu'il ne le dise pas et à un moment donné il n'a pas eu confiance en la justice de son pays mais nit nag boo demee ba amatoo confiance ci sa justice su pays amatoo confiance ci dara dangay jaayante. waaw <laughs> ngi noonu jërëjëf Modou Diouf alaaji mu mel ni léegi mbir yi six ak neuf la lan moo xew ba boo nekkee ci pouvoir bi. Euh, comme dëgg bi muy wax ne moo ngi ci ay principe ñoom duñ ko wax mais il suffit juste ñu génn bokkatu ñi ay gis-gis rek nga commencé gis euh, wax ji di commencé dëppoo alors que bi ñuy nekk si biir ñu gisoon dëgg yooyu te mënuñu ko woon wax. waa xam nga la plupart parents saa yi euh, lu mel nii day indi jafeñ-jafeñ parce que li ñu yitteel. Hmm. mooy li Cheikh Touré doon wax ne bu nit waxee waruñu jéem a xool nit ki fu mu féetee. wala fu mu ne mais li wax lan la loolu mooy li am solo parce que le fait que ñu naan lu tax bi mu nekkoon ci biir lu tax mu génn loolu day néewal doole euh, mbir mi hmm. parce que loolu du amu ci solo hmm. li ci am solo mooy li mu wax ndax dëgg la wala du hmm. dëgg loolu rek mooy li am solo leneen lépp ndax mi ngi woon ci biir lu tax bi mu génnee waxu ko lu tax loolu loolu ay détails la yooyu amul njariñ mais lim wax lan la foofu la ñëpp war di taxaw. léegi li mu wax moom yow hmm, d'après yow lan la. waaw li mu wax mooy li nga gis ma gis ko mu nekk Ousmane Sonko nekk koo xam ni dafa ñëw bind livre def programme. Hmm. wane ni sama programme lii la di discuter di def ay sujet di wax ci li nga xam ni mooy ni ñu yoree réew mi di ci wax façon boo xamante ne bi façon bu xóot la boo xam ne bi politiciens yu bari daawuñu fas daawuñu doxalee noonu. mu nekk ak ñoom di waxtaanee ci ay économie ak tamit suñu ressource yi nga xamante ne bii ñi ngi koy jaay di ko bazarder France li mu ñu teg muy yee nit ñi ba gëmloo nit ñi ne réew mii de nekk na réew moo xamante ne bii mën naa dem yoonam sans pour autant que muy nekk di langaamu. ci kenn. waaye nag il suffit que ñi ko jiite am noo xam ne noonu la ñuy doxale débat boobu di dem di dox bañ yëg ni débat bi mu ngi dox. donc ñu orienté ko ci yeneeni mbir yoo xamante ne bi génn na génn nañ cadre politique maanaam ci li mu doon woote ñu yóbbu ko ci ay mœurs ak ay faits divers. parce que expliqué na ko sax nee na si 2021 voilà loolu mooy li mu expliqué moo tax li mu expliqué noonu loolu nga xool bi mu ñëwee foofu mhm. nga gis ni yoon doxalee ak Ousmane Sonko en tout cas de mooy ki nga xamante ni ki ni doxalee ak moom yow pour nga gis keneen koo xam ni ki euh, yoon doxalee na ak moom nii ci réew mi ñëpp jaaxle nañ ci ni nga xamante ni noonu la yo parce que da ngay gis parce que homme de droit yi ñoom ñoo koy wax ñi nga xam ne dañuy yëngu ci yoon ñooy wax ne lii de mosuñu koo gis mm-hmm. yëf yi ni mu gaawee yëf yi ni muy demee yëf yi ni mu kiiwee dem ba ab médecin taxaw wax ni lii amut et pourtant pour ne mujj nañu pour poursuivre mbir mi dem ba nga xamante ni bi ka doon def enquête bi di gendarme mm-hmm. wax ne lii def ab rapport am wax jëmm ji ñu daal di éliminer ñooñu ñëpp mbir mi continuer di dem. même Adji Sarr nga gis ni jëmm ji ci jëmmi boppam wax ay waxam. Mm-hmm. walbatiku ne dama doon kaf et pourtant terewut loolu traîné nañ ko ba yóbbu ko li nga xamante ne bii mooy procès mm-hmm. loolu yëpp nekk loo xamante ne bi ay fee la loo xamante ne bi ñun ñëpp dund nañ ko du loo xamante ne bi lu ñu ne nettali la mais lu ñu gis la mu ne fàng ñu traversé ak moom loolu yëpp mm-hmm. donc mu wax la ni la. ginnaaw yooyu di am moo tax mu daal di radicaliser wu am neneen nu muy waxee ak neneen nu muy doxalee parce que xam na ni dañ koy yóbbu ci beneen terrain beneen saay nit di nga bëgg a jël mbir mi teg ko ci yoon parce que Ousmane Sonko terewut bi loolu lépp amee bañ ko tuumaalee ba nga xamante ni bi kii na toll na benn période boo xamante ni kii nguur gaa gi woon daanaka ci suuf. et pourtant dafa yëkkatiwaat nguur gi tegaat ko ci loxo président Macky Sall. Mm-hmm, mm-hmm. parce que jamono jooju wax na ni bu ñu continuer bu ñu continuer armée bi day jël nguur gi te loolu baaxut. ci réew mm-hmm. kon yoon yi mu jàpp moom ni ci la war a jëlee nguur gi mooy dem ci ay urne voté ji yaa ngi dégg. ba fi mu toll nii jamono ji ñu toll nii mooy loolu nga xamante ni moom la bëgg dañ ko ko bëgg a xañ ne ko loolu mun tane donc li li mu wax bul jël naan lu tax ba mu nekkee fee waxu ko loolu amu ci solo ba mu nekkee fee lu tax waxu ko loolu moom moo xam mais yow li mu la wax lan la ci loolu ngay téye hmm. en tout cas li mu wax wax la joo xamante ni bi ju ñu gis la ñun ñëpp wax jooju rek mooy li am solo mais pas ndax lu tax mu bàyyi ba tey mu koy soog a wax wala lu tax kii Sénégal loolu mooy li nga xamante ni mooy sunu problème di mamaaka wax na loo xamante ni bii tey yow gis nga ni dëgg la apprécier rek wane ni bon wax ji am na solo su waxoon tey ci biir wax ji mm. loo xamante ni bii mm. euh, teguwul fenn tamit da ngay xam ni li mu wax bu boobaa wax ji ngay jëlaat rek teg ko ci taabal bi waaw mais fi mu toll nii moom wax dëgg fa yàlla. Hmm. li mu wax moom wax la joo xamante ni bii ku xool di nga gis ni yëf yi nii la demee. Hmm, waaw mais alaaji li tax peut-être mu jaaxal nit ñi mooy que ni moom ñëpp xam nañ ni Ziguinchor la nekkoon ñu dem ba ci biir seetlu ñoom ñaar ay coowaloo yu fa amoon ba mu jaral ko mu jóge foofu ñëw def basam Kër Massar peut-être looloo tax nit ñi affaire bi jaaxal leen. nit ñi affaire bi jaaxal leen ci lan lan jaaxal. non le fait comme par exemple. wax ji jaaxal leen voilà waaw man wax ji jaaxaluma wax ji man moom ma jigéen aw ma ci benn problème parce que wax ji rek laay jugé ni nga xamante ne bi loolu la doon moom laa déglu. Mm. Euh, que ni mu demoon fëleeg yooyu yëpp ba tey yaa ngi waat ci ay détails sama ngañ newul. ci mu nekkoon Ziguinchor jóge fa dem Kër Massar delluwaat Ziguinchor mm. jóge APR def niiw ak lépp lu mu mën di doon li mu wax lan la man foofu laay yem mm. kon donc. Euh, voilà amul problème <laughs> amoon na lu di kon sama bopp mais bon amul problème nañu euh, dem. nag euh, ànd ak ki nga xamante ne ni moo di Bouba Ndour ci émission bi di jàkkaarloo keroog nag dañ fa dalal ki nga xam ne moo di maire bu dakaar di Barthélémy Diaz am na nag moo bu muy faral di utiliser Bouba Ndour nag contré na ko ci nañu dem xoolee vidéo bi ñëw.

doo ko tudd da ngeen di loolu la ñuy wax saanante xee gaaruwaale nga jéggal ma ci kàddu gi c'est la réalité dopp boobu ba léegi muy en en réalité doomu ndey bi aussi il faut nga jël ko teg ko fële parce que ce qu'on li ñuy constaté dinaa la wax lu tax mënul ne non mais xaaral rek monsieur le maire doomu ndey bi li may wax man je préfère sukkandiku si li may gis pour ma mën a juger est-ce que ñii ay doomu ndey parce que les euh, action da nga nekkoon anglais euh, action speaks louder than words ah. true li ngeen di teg di ko di ko di ko tegante di ko waxante moom la ñu mën a sukkandiku si kii parce que vous êtes des politiques aussi vous pouvez nous mën ngeen ñu emballer si benn discours boo xam ne vous êtes des politiques da ngeen mën a wax. mais dafa am loo xam ne soo ma doomu ndey bi pour moi taxawul c'est fu mu ne nii extrême wax nga am na benn extrémisme moo fi am entre ci ñaari relation yi c'est ça commence à s'installer comme haine bi am entre entre le pouvoir et et et Pastef mi commencé di ñëw côté boobu parce que on entend quand même des choses yoo xam da lay wóor ni xeex bi dafa metti donc mënu leen di xeex ba pare en même temps aussi di ko di ko di ko embellir daal et ñu mën a après finalement chaud et bi daf ñuy daf ñuy poser problème pour <laughs> jërëjëf incha mi ngi noonu euh, alaaji est-ce que Bouba Ndour yayul euh, kii nga xamante ni moo di Barthélémy Dias parce que d'après li ñuy faral di gis euh, fii relation bi rataxutul ratax bi tax muy wax ko doomu ndey ba léegi. waa xam nga Bouba bon gisee li tax sénégalais yi tàcc ko. Hmm. parce que sunu borom da ko may mu am sensu. jàkkaarloog Barthélemy hmm. ginnaaw bi ma amee sensu jàkkaarloog Barthélemy mu mën koo wax hmm. li sénégalais yu baaree bari nekk ci seen làmmiñ ñu bëgg koo wax te mënuñu ko bu mënuñoo gis ki ñu koy wax pour wax ko ko hmm. buuba waxal leen ko Barthélemy eh, mësul gëm doomu ndey doomu ndey bi musu koo gëm musu koo dund Barthélemy dafa nekk nit koo xam ne dafa gis Ousmane Sonko mu ñëw mu gis ni usmaan Sonko mii kat askanu Sénégal moom lañ jox bopp mu rangé wu ngir lijjanti ko ci hmm. dafa dugg pour defar ay mbiram waaw xam ni Ousmane sonk mën na defal ay mbiram hmm. mu tarbiyu ko nag ne ñàpp ci moom jëlee affaire bi sax ci cadre politique yóbbu ko ci doomu ndey mhm. ne Ousmane Sonko sama doomu ndey man jàpp naa ni euh, Ousmane Sonko bi muy dem gëmutoon ñu baree baree bari ci biir. Hmm, coalition bi. système bi. Hmm. mais wóolu woon na Barthélemy man gëm naa ni Ousmane ko joxoon na confiance Barthélémy wóolu woon na ko parce que bu interroger démb Barthélémy dina mën a gëm Barthélémy dina ko mën a wóolu parce que ni mu doon parce que ni mu juddoo mhm. judd na fekk na papaam samp parti et pourtant nekkul ci parti papaam jaarut ci trajet bi nga xam ne fa la jaar ay PDS ak yooyu dem na PS dem na PS ak lañ fa jógee tamit xeex lañ fa jógee mu tafu ci xalifa sàll di xeex boo interrogé loolu di nga gis ni kii kat am na jaar-jaar boo xam ni ku gëm boppam la nit la koo xamante ni kii nit ku am fit la ku am kii la yooyu yëpp da nga koy delloowaat mi pour wan la rek li tax Ousmane ko gëm ko maanaam boo ko bu gëmee Barthélemy dafa am raison pour gëm Barthélemy. kon de kon parce que avant Barth di def dara. Uh-huh. Euh, muy yow di man kenn amut kenn ku mënoona di taxaw di xarab Barth. parce que uh-huh. boo dee da koy xarab day am foo koy teg uh-huh. mais doo gis foo koy teg. parce que da ngay gis ni nit la koo xamante ni kii. lépp lu am. xeex na ci def na li nga xamante ni bi moom la war a def moo taxit Barth mën koo bett. mais jàpp naa ni ñeneen ñi mënuñu ko woon a bett mais Bart moom bett na ko. Mhm. man loolu moom gëm naa ni Bart bett na Ousmane Sonko. Bart nag dafa jàpp ni li muy wax Ousmane Sonko doomu ndey jàpp na ni parce que lii boo ko defantee politicien mën na ne mën ngeen a retrouver wu waat. Mhm. mais gëwma benn yoon moom ak Ousmane Sonko ñu retrouver waat. Mhm. maanaam melaat ni ñu meloon mënatu la ne. que ni nag liggéey mën na leen a boole ëllëg mais mënuñu melaat ni ñu meloon. mais bu fekkee kàddu yi mu yëkkati ne wax ne li koy génn ci sama loxo lay lay lay jaar est-ce que tamit. foofu diggante bi du rataxal boppam. Mhm. Sonko dama lay wax ne xam nga wax naa la la Sonko. Hmm. xam nga boo tëjee boo dugalee ci nit kaso ak esprit libre. Hmm. mu jàpp ni moom li mu war a def ak askan wi yëpp wàccoon na ak ñoom. Hmm. yaa ngi dégg. boo ko tëjee tëjuwut maanaam tëj nga ko caabi. tere nga ko dem ci ay kii mais tëjuwul. mais Bart fi mu toll nii dafa nekk ci bitti mais moom moo yëg ni mi ngi ci kaso. Hmm. parce que Bart tey fu mu jaar am na zone yu bari yoo xamante bi da wóor la bu fay jaar day tëj ki ay veeram. Hmm. c'est parce que am na loo xamante ne bi xalaat na ni bu fa jaaree dina ko dégg du ko neex. Hmm. donc moom moo nekk ci kaso. kon moom parce que Ousmane Sonko jàpp naa ni. moom la ñu war a tijji moom moom ci boppam moom moo bëgg ko ko tijji. parce que fi mu toll nii tey. Euh. il suffit que Ousmane mën na ko tàllal loxo mu delluwaat mën a nekkaat Bart. Euh. mais Ousmane Sonko jàppee Bart ilaa yow mi diini fa mu ko tegoon. Euh. maanaam beneen saa yi nga gis ñaari nit nekk. Mm-hmm. nekk ba mel nenn ni problème am ñu newaat nekkaat nañ mel nañ nañ meloon déedéet dañuy def semblant rek mais ku nekk dina am lu mu téye. Mm-hmm. loolu mooy li nga xamante ni bii mooy leneen. Mm-hmm. Bart mënatul a mel ak Ousmane Sonko niñ meloon. donc kon moo doomu ndey bi moom comme moo doomu nday bi li ci Bouba Ndour wax loolu la na ko mm. dindi teg ko fële mm-hmm. parce que mbalaan la moo xam ne xotteeku na ba pare mm. léegi kenn mënatu ci dara loolu moom mm. buñ ko dëbb daaxe it ba tey da ngay gis kii bi xam nga waa ji dafa ñëw waaw daal de saaga wax wax wax wax wax après mu baalu après waa ji daal di jël fooy ne ko boxamal fooy mu boxam ko fooy bu kii mu ne ko defaat ko ni melo mu defaat ko mu ne ko ndax mel na li melo mu ne ko déedéet ba léegi mi ngi am ay ras-ras hmm. mu ne ko loolu mooy li nga xamante ni bi tey mooy li Barth def loolu lay signifier maanaam a defaat teg ci suuf day ko teg ko hmm, hmm. loolu day daal day des loolu mooy li nga xam ne moo fay des mënatut a mel ni meloon loolu mooy problème mu euh, Barthélémy Diaz ak ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko maanaam ñàkk na xarit nag. Hmm. parce que ñàkk na koo xam ne jaraloon na ko moom mu dem kaso. wallaay Ousmane Sonko wallaay ndax gunge Bart jaral na ko mu dem kaso ngir ay intérêt Bart. Hmm. jaral na ko ko. Hmm. donc loolu mooy fi ma la toll tollu fa. maanaam fi Ousmane Sonko. tollu woon ci Bart Bart tolluwu ko fa. Bart moom tey jëndee na ko nguur loolu mooy seen kuute. kii mënoon na dem kaso ngir yow. mais yow jëndee nga ko ngir am nguur kon mun leen a mais àdduna nag ñaari mbir yooyu moo fi nekk alaaji ñii dañuy gore ba ba dee ñii moom da ngay gis ñu dem ba ci yoon bi jàddaat kon nag euh, comme waxtu wi xoj nañu. ma mm. bàyyi la rek nga tàggatoo. waaw di joxante dig daje beneen yoon lépp lu ñu fi waxit sunu xalaat la rek. Mm-hmm. koo xamante bi dañ ko jox muy sunu gis-gis. Mm. waaw léegi léeg it dañuy juum. bu ñu ngi ci juum ñu jégglu ko. Mm-hmm. waaw waaye nag euh, sunu intention daal mooy wax rek lépp rek ngir mu doon njariñu réew mi. yàlla yàlla def jàmm. amiin yaa rabbi te lépp rafet na macha allah xalaat yi rafet na sell na di leen jaajëfal rek tey remercier ñi nga xam ne ni ñoo nekkoon ci technique bi moo du Modou Diouf alaaji topp ak ki nga xamante ne ni moo di Lay jàlloo gërëm nag yéen internet yu ñuy doon suivre way leen di abonné ci solution info solution TV. jaajëfal nañ leen bu baax a baax jox leen dig daje beneen aljuma ci l'émission des émissions